Pierre Marie l'enfant chéri de la Petite Côte Boulain Siaka Fall ak Pascal Dione ak ki nga xam mooy Bouba Diop assurance mooy noonu bët gi de moo dem na Ndakaaru finaalu ko daan Simon bu Ñoojoor Pierre Marie ngi noonu man Dieng Jordan nee na ndeysaan mbër mu génn di bëre ji moom la xamul dara waaye mbër mu dul génn ndeysaan di tante te am dara Pierre Marie la de moo ngi noonu ndeysaan toogal naa xale bi sa cumikaay ya waaw waaw bu yàggee nga ami cumikaay waaw waaw acca bëre rek jigéen di jigéen sadar lamb kenn moomu du bàyyi kenn du yaay kenn képp ku génn ndeysaan bëre ji ndeysaan am nga ci doomu jilaas ci jaajëlaas ngi noonu ndeysaan asipa wu jande kam gel na ne jaanjaay Fatick Wow wow i jaajëlaas asipa wu jande Wow wow ngi de i jaajëlaas asipa wu jande Tama tayo bagasa kaitin. natin may Magagilas eh. Wow, na. Wow, kaparal. Palmarin eh eh lamb la ndeysaan ande si poids léger yi moom jijaak alliance jela si bawu jande la fa série de Mboullahar lumière alliance jele yi noon de ñu ngi koy sottil ndeysaan muy as ee di diw am na lu muy bindoo alias jella fasil le wula har mi noonu ndeysaan dem moo fi daan moon Fatick waaw waaw da si baax di yëngu tuuti ee am jolla waaye xale la ndeysaan Pierre Marie l'enfant chéri de la Petite Côte Boulain Siaka Fall ak Pascal Dione ak ki nga xam mooy Bouba Diop assurance mooy noonu bët gi de moo dem na Ndakaaru finaalu ko daan Simon bu ñoo jor Pierre Marie ngi man Jordan neena ndaysan ndeysaan mudul genn di beure ji lol la mom la xamul dara waye mbëru mudul genn ndaysan di tante tado du am dara Pierre Marie la de mo ngi nonu ndaysan toogal na xale bi sa cimbikaay ya waaw waaw bu yàggee nga am cimbikaay waaw waaw acca beure rek di jigéen sadar lamb ken momuko waaw waaw du bàyyi kenn du yaay kenn képp ku génn ndeysaan bëre ji ndeysaan am nga ci. Djidiack Djilass de doomu Djilass ji la de Djidiack Djilass ngi noonu ndeysaan asipawu jande kam gel na ne Janjaay Fatick waaw waaw Djidiack Djilass asipawu jande deh Ijak jelas asba hujan Tanganai bagasa mungkaitin Menurut dengan kami kaiber Ijak jelas Bale ba toog na doomu Jilaas baa ngi noonu de mu ngi ànd ak Maurice Caporal borom Palmarin eh eh lamb la ndeysaan ada si poale ze imam jijak alias dia la si bau jande la fan seri de mulahar limir ambiance yéen a ngi noonu de waaw ñu ngi koy sottil ndeysaan muy as eh di diw am na lu muy bindoo alliance de l'enfant c'est le wulaxar mi noonu ndeysaan de moo fi daan moon Fatick waaw waaw da si baax di yëngu tuuti def fi am njool la waaye xale la ndeysaan Petit Sélé Asubawou Diane Petit Sélé Asubawou Diane de kam ngel ne Njaay Njaay Fatick waa xale lu mu def nii yow xale daa tent bopp yow de laay Ibou Ndaat jëlema Baye Sall tey daal ay pele booy ñoo ne ये है বয়হারারের বয়বিরারের লাইলেলালা লাইলেলালা তাই গায় এই পেলে বইলা আলামিন আন্ডাল ñoom la de chaque jour ñoom lay àndal waaye de dañoo def yëfi pele booy bàyyi sal yëfi grand jour la def i bu ndaat jël ko yow Muna te da nga leel yow tent jàpp la rakk si Sélémélé ak buuru Saalum di ko jaale waat ndeysaan li ñu bokk muy Ndawa Sarr naan ko Saaroo dem na te dootul ñëwaat yal na ko yàlla yërëm ta xaare ko àjjana yéé Petit Sélémélé de waaw semaine passée de góolin laal yoon ndeysaan laal yoon def na retour ko mag dem na eh waaw waaw ngay guux li ngay naan xanaa neexul sotteekoo na ko wala da ngay caf-cafal waaw ngay raayoo di ko diwoo fete koy Disalah deh. Jangan pejan bang. Eh, pai sal dem na. Jar baat hum la. Eh, eh, ab kuch. Maola romb melen ngiic eexe romb min bay job rajo xelal fi ko samp dafa sori may leen

Ndiol Dia sol ay dàll yu bees et eh, bu ma ko xamee te day keroog Fatick mu sol ay chaussures fermées te indiwaat na ko te ay verre waa Pape sa mi lu nar Pape sa mi lu muy def nii waaye yow yow Souleymane Ndiol Dia mi lu mu lii lan lii mbar ko jam Ndiol Dia paas lii baax sa jàmm la hehe waaw waaw Ndiol ay verre la laal de Ndiol Dia ba doo daanu. lay leela la Wandiol hehe borom lok borom barñi mbaru grand Babacar bi mbaru Pa Adama Cissé bi nee na sant naa yàlla bu baax damay liggéey kafuma ay waay Ndiol waaw waaw na samaari ala <laughs> blewu mappa mayay way ñonkër wayo gérew ndayan yeen tubaab jalaw waye nëbb bi lu muy def lii moom daal ay bagaasam la yor chaque jour ak yeste jol jama moo jël ko rek waaye

Infanterie de campement Ngeko Maxi Petit Sélé oh Sélé Mélé waaw waaw eh taw eh, na Sélé lu mu yëg dugg rek daal di daw Tapha Cherif na de video ini. dëkk bi borom Fissel borom Pikine nee na tey ngeen dee waaw waaw Yeah.

gis amerkara waaw fils de yaay ndogo yi borom pont saareen borom ñaning ana mbay juuf Bikol production samba juuf maa lay bégee borom pont saareen xale baa ngi noonu ndeysaan daa am jom moo ko tax a yëg poids lourd ndeysaan ehe eh. doomu pont saareen baa ngi noonu nee la lamb ji mujjee am si arène bi moo ko jël oto lañ fi tegoon muy lamb Lamyn TV xale baa ngi noonu jom ko tax a yëg waaw waaw bi mu duggee si làmb yàggul waaye xool ko kanam gi lépp a xoosu ndax ay ndax bëree eh eh la làmb jaay jaay Fatick gars yi dañuy waaye ñëppay génn Pamoro na nga sa ginnaaw woo Modou Diam teeri la de eh waaye bu leen fàtte ne dañuy dem ci loolu ñuy suba la seen tànk yi ginnaaw suba la poids lourd yi lundi waaye bu leen fàtte tamit suba Bokar Ndour ak Fatou Kelle woote nañ Jaxaaw vision million deux catégories bu leen fàtte suba tamit ndeysaan sa Diofior 1 million 500 deux catégories eh, eh waaw waaw Jam Téeri lay lay la la waaw waaw mooy xaal la mu taal daal di jeex waaw waaw ñu koy nga fu muy gën a tàpp mu jaaru ci eh, eh. combat bi 100 pour 100 Petit Coll la campement Mbour Pierre Marie Lamine Petit Sélé Pierre jël na benn avertissement ziar Bouba Diop assurance ziar Jordan ziar Pakala ziar tunu hafu campement Ousmane Tandi Tali Sylvie Sali champion si petit côté yëpp ziaré naa leen la grand champion Bombardier borom guddi guddi mbuur waaw waaw Pierre Marie ngir bu ba jëm assurance ak petit Sélé Yeah, you waaw waaw Lamine nee naa la Guère Marie ndaanaan la donte li muy génn di compétir du bari ma moroon Asiba Widiane moo di jam teere Asiba Widiane booy moroon Asiba Widiane Sultanek Sidiki Kyobi isaapur saapo dikot diggante Petit Sélé ak nga xam ne mooy Pierre Marie bi kii Bouba Diop assurance Pierre Marie barki de moo jaay moo jël li nga xam ne mooy arène Adrien Senghor si kaw si moom bu ñëw ndaanoon la waaye li muy génn bariwul देते हैं अवर्तिस्मान निशान शिविर को हमारे तो एक पेयर मारी इसका डिना सॉटी पेयर मारी इनको पूरी सरे मारी दफा परी ये जल लोगों डले तक डले पर आके डले पर आके लाई लाहे ला डाटिस bi nga bëgg a bëre moom dafa yomb code naa la ikiri bu ko jóob assurance kenn du leen code filet ndax ñoom ci loolu lañ jàng bëre eh na ko mu ngi koy mboot bañ na eh fekkete na ko ñu ngi bëre eh, eh bàyyi bant bi bant bi amu ci yoon combat la ñaar ñu tolloo doole tolloo kabari tolloo taay waaw waaw arbitre atte na leen nee miitaan nañ Petit Sélé ak ki nga xam mooy Pierre Marie am nañ moo di jëm teeri am Sidi Apit am Ndiol Séance waa Nouri ndeysaan am ki nga xam ne moo di Sélé Mélé ak rajo fi jël na ko jàppal na yel ba daanee yelba waaye Pierre Marie bañ na ñaari xale yi ñaari doomu petit kon waaye ñaari ndaanaan lañ tolloo doole tolloo taxawaay gabari ak lépp ndeysaan bokk lu ñuy bëre tamit yàlla la ma ñaay ñaay fa di nga nu mu di mel ndeysaan day saf day neex na ko ndomb guddi day daan wala daan na ko Body Sélé daan na ko Body Sélé daan na nga xam mooy Pierre Marie te Pierre Marie ko sàccoon bëre nañ lu neex bëre nañ lu neex ndeysaan eh danga seet wala génn na oh, oh. combat bi 100 pour cent Petit Colle la campement Mbour Pierre Marie Lamine Body Sélé Pierre Marie jël na benn avertissement Demba Diop assurance di ziar Jordan di ziar Pakala ziar Dulu Xafu campement Ousmane Tandi Gali Sylvie Saly champion si Petite Côte yëpp ziare naa leen le grand champion moo bënte borom guddi guddi Mbour waaw waaw Pierre Marie ngir Bouba Diop assurance ak Petit Sele Thank

sipa hujan mau di jam tiada sipa hujan boy corona sipa hujan hehe jangan abal bin corona Baik bapak Sultan Eksitiki Gelbi, Sapur Sapur Ikut Digantar Poti Sele, Akhir Hami Mai Biar Mari Binti Buba Job Asras Biar Mari Berkide Mojai

Pierre Marie li ko Petit Sélé may dafa bari jël na ko da dakk da lay baraake da lay baraake lay laay la laa daa diis li nga bëgg a bëre moom dafa yomb code code filé te nee naa la ikiri bu ko jóob assurance naa ne ñoom ci loolu lañ jàng bëri eh na ko mu ngi koy mboot bañ na eh fekkete na ko ñu ngi bëre eh bàyyi bant bi. bant bi amu ci yoon combat la ñaar ñu tolloo doole tolloo kabari tolloo taay waaw waaw waaw leen nee mi taa nañ Petit Sélé ak yaa xamoo Pierre Marie nañ moo di jëm teeri am apit am jol séan li nga xam ne moo di Sélé Médé ko jàppale na yel ba ba di Sélé jàppale waaye Pierre Marie bañ na ñaari xale yi ñaari doomu bëri kon nañ waaye ñaari ndaanaan lañ tolloo doole tolloo taxawaay gabari ak lépp ndeysaan bokk lu ñuy bëri tamit yaa la ma fa di nga nu mu day saf day neex Cissé Lo eh la ilaha illallah fu ñu jëm waaw waaw war na daan wala daan na ko Cody daan na ko Cody daan na nga xam mooy Pierre Marie te Pierre Marie ko sàccoon bëre nañ lu neex bëre nañ lu neex ñaari géant ñaari xale ñaari njool ah dernier quart de finale Alliance Diène ak nga xam mooy

ñaari njool lañ ñaari xale tolloo doole tolloo taxawaay mën a bëre tekki ndeysaan tey dina 11 mars 2023 fii si Gandiaye Fatick dixième édition drapeau cinquante lu yàgg dëgg la ndeysaan grand Ismaïla Ndiaye ñu ngi koy ziar Jackson Ndiaye ñoo ko dina ko sànni fa Zongole kon la la la ilaha illallah dara boobu ee la tooña ma buga mu ndawe bu hawina halirame

wala Modou Diam Terry day jël revanche am ee eh, borom Ahmed Karaame Pa Adama Cissé lépp si biir am lamb seen ndongo aan siyaare naa la di la jaale li ñu bokk nee naa la kenn ku nekk mën nga kaa jaale sa bopp ndax kenn la woon Ndangaan Ndangaan ak Fatick waa ñoo tegaloo waaw Mali Fatick lañ njëkk a daje ñu daje waat Ndangaan waaw waaw tey ñu daje waat fii si Njaanjaay Fatick ma ne ko premier combat choc de la soirée 11 mars 2023 fii si Njaanjaay Fatick Fatick lañ njëkk a daje keroog ndeysaan le 4 mars ñu daje le 6 mars tamit fa nga xam mooy ndàngaan ñaar yëpp ñoo teewoo daan tey di le 11 mars ñu dajewaat fii ndeysaan ma ne ah ci Njaanjaay Fatick dixième édition drapeau Cheikh Kanté Baye Keba Kanté Modou Ahmed Karala ak Modou Kane ñu ni kuy daan tey ñool ñaa day confirmé wala Modou Jam Terry day jël ne si nañ bëre comme ça ñu gaaw suñu liggéey bii. eh Ndiol xaraan na ko Ndiol xaraan na ko saa waay géej eh, mu tëb Modou Teeri bañ na laay leela la Ndiol Géant Modou Jam Teeri lumpam maa ngi lay ziar. sa i nee na ma Gàmbi lañ njëkk ku daanoon Ndiol Géant ak Modou Jëm bañ dajee Gàmbi ku daanoon Ahmed Kara mais ren ji ndeysaan ñu ngi dajee le 4 mars sa Fatick kal na ko eh Modou Jëm Téeri la war na ko ndamba Modou Jëm Téeri penalty penalty Ndiol Géant xëccaat na ko si kanam la ilaha illallah doole jox jam Modou Jëm Téeri mboot na bañ na eh, eh nee naa la xale ku ko daan ren doo ko daan déwén ku ko daan tey doo ko daan suba fulla la am ak fayda ak jom la ilaha illallah combat boo saf na moo di jëm teeri seya waaye Elhadji Ndiaye Thiatou Aida ak Boy Maron ñu ngi si côté bi buy daan dem eh, eh. Eh, jël na ko. eh Boy Maroon jël na ko Boy Maroon jël na ko Boy Maroon jël na ko Boy Maroon wër ndomba penalty wu lamb luy am wel na ko daanu ko eh eh lay lay la la lii lan de finale yi saf na de mooy de finale yi saf la bëree Radiakhé quart de finale la ñoom ñu bëree combat préliminaire seen quart de finale saf na Modou Diam Terry ñool Jaya yombul El Hadj Ndiaye Boy Baron yombul eh kolaat na ko kolaat na ko kolaat na ko kolaat na ko ñool Jaya na ko ñool Jaya daanaan na Modou Diam Terry na ko kat Gambi Fatick Ndangan Njaay Njaay Fatick doole deful jàpp waaye bu ko daan reer nee naa la eh waa ñool Jaya lu muy def nii eh eh ñool Jaya doole. Ndiol Diagne nee na daa am doole Ndiol Diagne nee hee nee na day joow nee naa ku ko daan ren doo doo ko doo ko daan suba. waaw waaw booy ba doon jékku na fi El Hadj Ndiaye war ko doom ba mu rëcc jëlaat na ko ñëwaat jàpp na sa ngemb la mooy xandaaloo moom El Hadj Ndiaye ngay bañ booy ba doon am na ngemb. Era por fin no. waxtaan ci ci délégation bi ànd ak Benno Cee àndee mën a gërëm suñu xottu bi te nit xale yi lamb rek lañ soxla am na loo yàgg rek léegi ñu commencé déconné moo tax ñu bëgg a jublu ci remise de cadeau kon madame Kanté dama ne moom la ñu ñëw fii mu ñëw taxaw nii ñu jox ay cadeau mën naa taxaw nii rek madame Kanté di koy jox ay cadeau mooy le président de la ci dernier quart de finale après demi finale finale yi. Kanté Ndiaye muy Birama Faye moo koy waalo waalo ɗum madam kante waaw waaw madam kante ñewalta ho fii madam kante ñewalta he poids léger la ñuy ah, yow mënuñu woon président bi nga Ibrahima Faye ñu ngi ko jox ay cadeau nañ ba mi temps. nekk rek ñu na cër ko jox. dëbb na ko sol. Boy Maroon Thiatou Aida man na nag moom bu woy amul reportage ba duma saf dara

dama ne yow nga nekk koo xamante ne dafa bëri. xëy na dama la xam fàtte woon génne woon naa la si poul bu yàgg. dama ne lépp loo xamante ne dañ ko wax nit ci lu baax dañ ko ko wax te dañ koy jëfe ñu di ko gis kon nañu jox micro bi nga waxtaan ak koo xam ne koo ñeeñee. ay caay caay caay Cheikh Kanté dama wax ne war naa mën a jël micro bi jëfandikoo. non Ibou am na deux avertissement. Balla ko temps jeex na jël na avertissement. Boy Morone génn na te xam mooy El Hadj Ndiaye John Lass. ah waaw Boy Morone en demi-finale. waaw waaw ngay waxtaan ndeysaan fair play loolu dañuy neex ñu xool demi-finale yi ni muy demee première demi-finale poids lourd Radiakhé Sélémélé rajaxe tey jii mën nañ ni turam li ko lancé si daan célébré lendemain gàmmu ak Kaolack si la génnee ndeysaan waaw waaw célébré rajaxe ¡Ven a ver, Isma! ¡Reyes el MLE! ¡Primer día de mi ndeysaan di nuyu raxu le grand saltige borom Gandiaye jëli tànkam rajo xebañ waaw capté na ko tàggaliko première demi-finale poids lourd itaa nañ arbitre bi sifflé woon na deuxième round baa ngi noonu première cinq minutes yi jeex na penalty ulambo penalty ulambo selemele selemele rajaxe selemele rajaxe waaw waaw rajaxe daan na selemele li daw na yaram jëlal Lamine Petit Sélé moom tamit ee ma doon Ndiol Géant dere dafa foor jëlee la min police la mu xoolee rajo xee taxaw laa ilaaha illallaah booy ba doon jël Géant laa ilaaha illallaah eh waaw arbitre am na waay waaw waaw génn nañ saako Boy Maroon eh la ilaha illallah Boy Maroon Ndiol Géant du yomb Boy Maroon Ndiol Géant Boy Boy Maroon yéen a ko ati bu sa suuf Ndiol Boy Maroon jékku na ko la ilaha illallah eh, eh. Boy Maroon la ilaha illallah Ndiol Boy Maroon bëtt na li ko may bari na jaxabal na ko daan na la ilaha illallah dalal ಮನಿಗೆ